alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak ndongali Cheikh Ndiaye Gana maam Cerno Ibrahima Faati radiyallahu taala anhu mas naa jox sëriñ Tuuba xaadal wallahu maxtaaralahoo ñaar fukki junni ak juróom ñett sëriñ Tuuba xaadal wallahu maxtaaralahoo dénk ko soxna Awa Saar radiyallahu taala anha ba ñuy tàmbali jumaa yaay njaareem ji mu ne ko andi la ma la dénkoon daal di wax ne bopp bu nekk na joxe ñaar fukk ak juróom-ñett maam Cerno Ibrahima Faati radiyallahu taala anhu ko ndax mën nañ koo siiwal sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaaraloo ne ko ba kirikoro kirikoro nag ab dëkk la ne ko bu amoon ñu ci dul bokk waa Tuuba lay doon ndax ñoom ñoo ma dëkkal ca sama dëkk bu tedd boobee siiw na wallaahu aalam sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal